Amical inspecteur des impôts et des domaines at bu ne def réunion pour renouveler bureau euh ren nak fi lañ ko défé pour renouveler bureau bi ñun nak ñu ñëwoon ci parce que si lañ bokk d'abord ñun suñu bop et inspecteur des impôts et des domaines ñom ñoy jité administration fiscale donc bu ñuy jité administration fiscale di dajalo di waxtaan seen biir dafay rafet ñun aussi ñu tew ci lolu moo ñu fi euh gannaaw lolu aussi ñu ñëwoon di seddo ak et di partager ak ñom di administration fiscale parce que nous ñoy élite bi ñom ñoko jité gis-gis administration fiscale euh, si ñaari patch ñu premier bi nga euh, collecter recettes pour l'État du Sénégal ñu gis ne ñi nous dañoo ñi natt puisque dañoo néew ñun ñu jàpp ne il faut ñu lancer plan bi wax yaatal pour yaatal natt bi ñëpp mën participer et loolu dañ koy teg ci communication dañ koy teg ci waxtaan ak nit ñi dañ koy teg ci aussi ci exploiter renseignement yi ñu am yëpp loolu mooy programme yaatal bi ñu bëggoon partager ak amical inspecteur des impôts yi fi nekk ñoom aussi ñu mën ci jox seen xalaat parce que amical lañu bu ñu joxé seen xalaat loolu yépp nak ñu dajalé ko waxtaan ko ak nguur gi pour ngourgui aussi djel ko en charge ñun ñëpp ñu mëna dawal parce que buñu amé yaatal bi ba ñëpp mëna bok bu ñëpp boké japp nañ ne tégg bi dina mëna a parce que bu touti ñoy nat natt bëgg a teggi dina jafé waaye buñu yaatalé nat bi tégg bi faaw il faut mu am et ñëpp dañu wara bok ci tégg bi effectivement parce que buñu défaré ay tali buñu défaré njang bi buñu tabaxé ay hôpitaux ñëpp dañuy bok ci tégg bi donc il faut aussi ñëpp mëna bok ci nat bi

Euh, yok suñu kom komu entreprise pour yok suñu kom komu maison pour am suñu garantie lolu aussi dafa bok ci patch yi ñu denk té lolu aussi dañu ñëw waxtaan ak inspecteur des impôts yi fi nek pour ñu mën ñu ci jox seen xalaat ñu dawal ko inshallah à compter de 2020. dañu dajalé aussi porte Portudal pour 15e euh, assemblée générale sun amicale amicale bi nga xamné mo dajalé inspecteur des impôts et de domaine du Sénégal yépp l'assemblée euh, euh, générale ordinaire normalement dañu war a dugaat salle pour renouveler le bureau euh, mais nous avons l'habitude, chaque fois d'aller si benn dugal si benn kii assemblée générale qui kii point réflexion Nous ñu décidons faire des si carrière inspecteur des impôts et avons nan lañ programmer ba direction générale Nous avons à peu près sa carrière nu 10 ans 15 ans réflexion yooyu dañ ko commencé woon biir DGID déjà ça fait des années moo tax ñu demandé won aux collègues yi nga xamné ñoo doon suivre dossier boobu ñu partager réflexion bi fu mu toll actuellement pour nous permettre après ñu gën ko gën ci xalaat gën ci apporter ku ci nekk sa xalaat pour finaliser document boobu jox ko autorité yi. en fait du gëna a urgent de façon euh, comme ni ma ko waxé légui Sénégal dëkk euh, bo xamné ay moyens yi ñu sox soxla dëgg doyul mo ñun ñëpp dañ koy reconnaître donc le service bu en réalité il ay en termes parfois humains même personnel parfois moyens matériels. doy parfois moyen matériel yenn locaux yi c'est pas toujours adéquat Il y a autant de possibilités il y agir pour permettre aux agents de travailler plus efficacement pour l'atteinte de leurs objectifs